kon euh, Fat Diop ñu ngi lay nuyu bu baax. <laughs> di présidente section PRS euh, bu yëmbal euh, sud. Mm. di la jaajëfal ci teewaay bi. mais aussi tamit comme li saa wax rek di leen sargal ci bisu tay bi ëpp na nag ah, yéen li ngeen am ëpp na benn. ëpp ah, jigéen moom mooy mooy lépp. weer la am ah, weer la am. Mm-hmm. waaye tey yéen waa PDS 8 mm-hmm. mars bi nan ngeen ci fas ne taxawee au niveau communal wala au niveau départemental ak au niveau national. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi toog ci plateau bi. di nuyu la section PDS bu Yeumbeul Sud. di nuyu kilifa yi nekk ci parti bi yëpp surtout les femmes ku ci mel ne Adjaratou Fatou Sow Diawara Sarr ainsi de suite ñoom day Rama Gueye ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar. di leen ñaanal jàmm ci bés bi muy suñu bés comme nee ngeen benn jour lañ si am ëpp nañ loolu mais ñi ngi sargal jigéen yëpp di leen ñaanal jàmm di leen wax yàlla nañ ko yàgg a teewee. léegi nan ngeen ko fas yéene màggalee tey waaw comme ni ñu koy màggalee tout le monde rek chaque année tamit comme ni ñu koy defee le 8 mars ku ne gis na jigéen ñi ni ñu taaroo sama naw lay si plateau bi suñu parti tamit ñi ngi organiser muy Ajaratu Waré Sarr mi ngi def journée bu mag. pour mhm. jigéen ñi. département bi tamit Ajaratu Fatou Sow mi ngi organiser pour jigéen ñi man mi je suis un conseillère municipal sama commune tamit mi ngi organiser. de ce fait que invitation moo tax ma bàyyi lépp ñëw. Mhm. xam naa su ma paree dinaa defaat tour bi yëpp. Mhm. incha allah. mais ngeen dajale woon def ko jigéen ñi nee na jigéen ñi ñu bari nee na li leen gën a néewal doole mooy seen tasaaroo parce que yaa ngi wax euh, ci gox yu wute lépp di banlieue mooy ku ne ak woote te ca benn parti la mais kenn rek mënoon a woote ñëpp fekki ko mbooloo mi gën a daje message bi jàll. mais ñëpp mënuñu dem suñuy mënta yem ñu mënta dem dañuy toog organiser wu. Mhm. feexal seen xol organiser wu comme ni ko président wax Wade waxee mais lépp lépp lépp lu ñu uti uti yëpp si benn bool bi dañ koy sotti. Mhm. muy parti PDS. si mhm. lañ bokk. te tamit ñi ngi organisé wu di préparé wu di xaar suñu retour candidat. seen retour candidat. Mhm. mais yéen jig PDS yéen boo boo leen nee fonk ngeen jigéen man damay jaaxal Ablaye Wade moom fonk na jigéen mais yéen ñu fi des parce que ni ngeen di dundee ak Mimi Touré maanaam loolu ci jigéen joo xam ne tey jii jiite na ci ay institution doon premier ministre bu Sénégal tey jii fépp lépp lu mu wax rek ngeen suul yéen waa PDS seen diggante mu mu ture loolu est-ce que sagle ci jigéen ak moroomam. waaw ah, soo dee PDS mooy Abdoulaye Wade kon li fi des tamit Abdoulaye Wade la ba léegi. mais Mimi moom mënuñ ci moom dara lu dul jànkonte lu ñu jànkontee rek moom la su ñuy validé suñu candidature 2019 c'est grâce à Mimi lépp lu Karim Meïssa Wade dund kon Mimi la kon Mimi moom mënul def lu su wàqee ñu suul. su ne lii la ñu ne ko du loolu leneen la. parce que nag daf ñoo defal daf ñoo méttital méttital bu nekk dund nañ lu nekk ndax moom ñun ñii jàpp nañ yóbbu nañ ñu central Mimi lu nekk def nañ ko ndax Mimi Touré kon Mimi moom. mënul wax yoo ñu ne ko. Mimi wala Macky Sall. ñoom ñëpp la. parce que Mimi ay ordre rek la non non ay ordre lay recevoir. lu tee mu xool trahi bàmmeelam wala politique moom yeggul fële àllaaxira ah politique yeggul àllaaxira mais yéen defante kon ngeen bëgg tey. bu sax defante pare nag pour jàkkaarloo ak moom pour defante ak moom. ay pour ay dent pour dent. ñu moom mayuñu ko dara te dara du sedd si moom. non jamais. waaw man de seen dil bi laa bëgg nga wax ñu fu mu. non loolu kañ la. ab mimi nee na yéen Ablaye. Ah, waaw mimi nee na nga ma wax kooku non non kooku daa xamul fu mu jëm mais déglu ma ma laaj. lettre ma ma ba pare. ma ba pare. soxna si Diop. teer rek. guddi ngeen di jóg di dil. jamais jamais. Ablaye Wade di dugg ci suuf mook Macky ñuy daje. non non mimi nee waxtaan wi sori na. waaye Mimi moom xalaatam la demee. waaw ban xalaatam man euh, Mimi wax. base lay wër. waxantu ñu ko rejoindre lay wër na dem wuti base moo gën ci moom li muy musóoru di wax. na dem na dem wuti base. abe ah, musóoru na dem xooli sénégalais yi. nga ni xanaa musóoru ñii musóoru. non non pas ñii man Mimi moom a tax di wax moom musóor yi ak musóoru Mimi dañoo bokk. yu tagal yow tamit. non non non mais mais mais mais mais Fatou mais xam nga Mimi Touré. kii lu tax ñun ñi wax ci Mimi Mimi Touré. ak taxawaay bi ngeen am ci moom parce que Mimi Touré li mu wax dafa leer. te ay fee la. Mhm. nee na yéen. da ngeen bëgg dangeen ko bëgg a jël moom Mimi Touré. Mhm. maanaam ngeen bubboo ko ah nan ñëw nan ñëw ci kii bi wala ngeen da ngeen maanaam yéen da ngeen bëgg a dem ànd ak Macky Sall. Mhm. léegi wan ginnaaw opposition bi mais prétexte mi mi ngeen di jël bu nekk ci assemblée nationale ah bu nekk ci assemblée nationale ne opposition bi ànd ngeen ni mimi bi ne nan taxawal ab plateforme bu yat ci opposition pour demee ko 2024 ngeen taafantoo mimi mooy bu bokkee duñ dem. est que mimi bien sûr nit ki mën na la rey démb tey nga ñëw damay ànd ak moom mën na la toroxal def la lu la metti tey nga da ngay ànd ak moom kon ñun ban parti lañ bokk. ban sénégalais lañ ban sénégalais lañ ak Macky Sall ah te ngeen di maslaa ak Macky Sall jamais mosul am loolu moom waxam la non mais yow tamit ban diil moo fi nekk ah, ban diil waaw mimee ko wax mimi nee naa xamul fu mu jëm day tañax tañaxi rek non non xamul fu mu jëm yow tamit mimi moom bi moom pare na continuement yéen non yéen PDS sax yéen mhm. mhm. kii démb rek kii mi ngi koy wax son mi ngi koy wax nekk galo dong lañ dégg muy wax galo kese moom la ñuy dégg ci PDS parce que man PDS sax man pour man euh, da ngeen bàyyi ah bàyyi waaw parti buy animé woo comme PDS amul fenn si structuration yéen ñi fan ngeen animé a ngi dox yéen ngeen di PDS daa dee parti dina dee am 24 députés parti dee am 27 députés au niveau national yeewi li ko lebal suba moom lañ ko fay par ngoon li ko lebal li ñu lebal suba rek lañ ko fay si ngoon yéen ñi fan si yéen dee wàllu intercoalition ñu gañe fii ñoom ñu gañe fële ñu boole suñuy voix wala ñoo bañ a jël ba xam fa la gañe xoolal fi ñu gañe yépp waaw li tax nga ne euh, euh, li tax nga ne Mimi li tax waa parti démocratique sénégalaise ni Mimi tóob la. ah waaw parce que bu ñu ko yabalee mu tasaare opposition. waaw waaw. Ah, da ngeen jàpp dañ ko dugal ci opposition. dañ kaa dugal ci opposition pour mu disperser. Ah. mais moom moom fu mu bokk ñun moom merci. mais yéen a ngi ko ciy dimbali. lu ñu ko ciy dimbalee. mooy lu opposition. mu toog fu mu toog duñ fa toog. bu ñu dal yépp moom la d'ici 2012 lépp lu ñu souffrir moom la. Mm. Ah. mais bu ñëwee ànd ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane moom bu ñëwee ànd ak Ousmane Sonko te yéen ñi nga xam ne yéen mais Sonko sax suñu invalidé liste nationale am grâce à Mimi Mimi moo nekkoon campagne ñu sonnante fi ay xeer waxante lu ñaaw lu nekk mhm. tey ñu ñëwaat boot Mimi rogganti ko loolu ban opposition la non doxul si yooyu waaw dégg déglu ma mhm. yéen PDS mhm. candidat fantôme ngeen yu nekk lu dul ci groupe whatsapp yi di vocal ak audio. <laughs> yaa ngi dégg ba noppi ngeen topp ko quoi man c'est que loolu mooy sama problème. mais candidat bi ñëpp soxla bi ñëpp namm bi ñëpp yàkkamti mu ñëw te yàggatu dara à bientôt. est que dinañ soxna si xoolal man damaa bëgg. yow saa ñëw yaay ñëkk a jiitu si teeru. non ay ay dàggasante déglu ma. non wax buñ la wax ah ñëwee. yow da nga ak défense dagg sante waaw dañ la wax ne la Karim Wade mi nga xam ni gisuñu ko. Mhm. PDS wax ngeen ñu ay yoon nañu Karim day ñëw ñëwut. waaw ñaata yoon ngeen ko wax li ngeen wax ëpp na ñetti yoon ngeen ne Karim day ñëw ñëwut léegi. Mhm. nan la nan la nit ñi mën a gëm mbirum Karim Wade fi mu toll nii. waaw ñim ñor moom gëm nañ ko ñim concerné tamit gëm nañ ak lim leen def yëpp. ne leen ni nga ñëw te ñëw gëm nañu day ñëw du ñu buuse du ñu xàddi. ñu nekkoon fa la nekkoon dañ koy topp ba jusqu'au boobu ñu nag moom ba pale mais am na ñu ne ñi nga xamante ni bii tey. Euh, deuxième tour sax duñ fa yegg ak moom Macky am na ñoo xam ne ñi ñi nga xam ne tekk nañ dara ci wàllu politique. PDS mhm. ñëpp dem nañ. Mhm. ñi fa des mooy ñi nga xam ni amuñu fuñ jëm. mooy fan. mooy non non fii parti boo fëgg ñu tijjil la. yéen ñi amu leen fu ngeen jëm déggoo ma de parti boo fëgg ñu tijjil la. mais exemple boobu dund ngeen ko ci yëmbal sud am na ay ay dem dikk yu fa am ñoo xam ne demoon nan tey ji ñi ngi xëccoog yenn section bi. waaw loolu suñuy grand yu baax la suñuy paa lañ hmm. ñoom ñoo demoon recevoir Amadou jël xaalisu Amadou ba mu neex leen ñu bëgg a retourner fekk rek structuré waan nañ suñu parti ñu ngi liggéey suñu liggéey. mais yéen a ngi massifié kay ay nit bu nangoo ni demoon nañ. non bu xam ne tëjuñu buntu kenn de tëjuñu benn buntu. ku bëgg a ñëw bokk nga ñëw rangé wu lan moo waral coow li ñëw rangé wu. est-ce que c'est pas des accusations gratuites parce que au sein du PDS dafa bari ñu naan ñi ngi ci biir PDS mais di mbubboo PDS dem di lijjanti xaalis quoi du dóor ci nguur. ah ko def mais ñun yooyu mais c'est vrai que Amadou Fa Amadou recevoir na leen. recevoir nañu ba ñu ànd ak ñoom di campagne ñoom ñu ànd di campagne. Ah, kon benn lañ doon jàppale ñoom. benn lañ doon jàppale parce que ki ñu investir ci département bi neexu leen waruñoo bokk après nag si lañ ñëw taafantalaayoo ni baara mais ñoom bi ñuy mer di dem. Mhm. booba xamuñu sax intercoalition dina am. Mhm. waaw mais le cas Bara Gaye est-ce que du seen sàggante ngeen am élément doon na Bara Gaye doon maire am am éloquence am élégance. mais hmm. PDS di sàggan ba. baara dem yeewi ñu fa ëpp élégance mi ngi fa ñu ëpp charisme ñëpp. mais baara mais dama lay wax. baara kay ànd dafay am fu mu commencé am fu mu yem fi ko yàlla tudd mu yem fa rek foofu la yem. noonu nga ko gisee su bëggee dellusiwaat tamit mu dellusiwaat. fii la xam yow nii la ñoo ko yar nii ñoo ko ah mais nit ki da ngay ci lu ko neexul. waaw mais yéen ko poussé pour mu génn. parce que kenn poussé kenn non non a def seen structure nommé ah, ko. Ah, ah. xëy bëgg ko dégradé. kenn wu ko xanaa ko li xewoon permanence suivre mooy lan. dafa amoon amul lool ah Abdoulaye Wade moo tekki ay kii yoom moo tekki ay lanam ndombal tànk ndombal tànk baax kenn tekkiwul dara ah kay non moo xewoon permanence numéro 2 bi ñu ko defoon ba jour ba muy dem di rejoindre feneen kenn mosu koo tekki kenn tekkiwu ko waaw ah, ñëw euh, PDS depuis mhm. Karim dem daanaka PDS dafa nelaw tey jii eh, da ngeen ne da ngeen ne Karim Wade day ñëw waaw Karim Wade maanaam. mais yow sa yëgoo ko. man bi yow saa yi waxal la si neex rek mais yow soo yëgoo nelaw. da ne Karim Wade day mhm. ñëw. Mhm. Karim bu ñëwul lan moo nekk seen second plan pour PDS. non amul amul second plan. Hmm. Mhm. Karim rek premier plan la ñam. Karim rek. jusqu'au bout. mais Karim rek loolu est-ce que wóor na pour PDS. si wóor na su wóor wóor. mais Mimi nee na Mimi nee na seen position yéen doo bàyyi Mimi. surtout seen position maanaam wax bi bari na mais seen seen position ci troisième mandat ba léegi nangu woo leen ko leeral coow lee bari rek. waaw du ko leeral. mais yéen li logique bi Abdoulaye Wade nekkoon ci ngeen ne cinquante ans yoo xam libéraux ñoo fi ne. moo tax troisième mandat wu Macky Sall nangu woo leen ci wax. lan moo ci lan moo ci sa position yow ak waa PDS. ma ne ku wóolu sa bopp deux deux kii deux mandats rek la def Macky mën na def deux mandats beneen libéraux ñëw loolu bañuñu ko. mais est ce que war na doon candidat. mais 50 ans dañ koo assuré. mais na moo wax damay bañ nag mu wax a pare weddi. ah mais taxawaay bi moo ah, des. waaye Abdoulaye Wade dafa dogal. non non non Abdoulaye deful dara. wax waxoon waxee lu ko bind lu bind maa waxoon waxee. mais yéen tey mais yéen tey. <laughs> mais mais tey jii dans l' opposition ah. sénégalaise ah. la réalité tey jii. Mm, mm, mm. boo xam ne tey jii nga bëgg nga bañ. moo fi ne di opposant ñëpp nangu ni kii c'est le chef de l'opposition mu Ousmane Sonko Ousmane Sonko yéen ngeen nekk fi naan ay Karim ak ku ne mais fii Sonko moo fi ne non ñun ah. gis Ousmane Sonko mais taxawaayu Ousmane Sonko est-ce que du seen sàggante yéen maanaam nalaw bi ngeen doon nalaw te dama la bis bu Karim retouré soo moom moomul woon foog naa dootul gis kenn mais ñàkk a ñemee tax tudd dootul gis kenn Ousmane Sonko nee na ah Karim Sonko hmm. bu Karim ne cëpp fii à ah, l'aéroport fii combat bi jiital ko. Eh? non Sonko pare na. yow mais da ngeen di nag. waaye ah, yéen nag ci caaxaan di eh, eh, xalaat foo ngeen teg ni premier tour da ngeen da ngeen di. premier tour Macky acca. Karim si biir. kon d'accord ngeen Macky nekk candidat kon parce que boo nee acca rek candidat la. Ah, moo ko mën a tee doon candidat. Fatou ah, suñu d' mais moom moo yor. moo yor justice am yor léppam. mais taxawaayu mais taxawaayu opposition. maanaam taxawaayu opposition wootee doo leen ci ñëw. laay bi nag la opposition woote te ñëwuñu si lan la opposition te te ñëwuñu si. lan la opposition mooy assemblée lu ñu fa tëgg ngeen tas ko. ànd ak opposition dem élection ànd ak opposition tëgg say élection tey ñu ni. mais dem assemblée mel na benno mooy ban. mooy lu opposition bi lal. ngeen ni àndoo leen. mbaaru seen motion de censure bi la. ak yeneen ak yeneen. motion de censure yëgaluñ ñu. mënuñoo bokk léegi na plateforme bu bees bi ñu leen lii pour dem dem. non boobu Mimi moo koy coordonné bokkuñu. mais lu tax ngeen ñu mën ngeen bokkee doo leen dem maanaam. c'est-à-dire que man mun naa nekk man mun naa nekk ci béréb yi may liggéey ñàkk fee jubóog nit waaye bu xëysee du ma xëysi amu ci droit. amoo ci droit mais maanaam mun nga bañ a jubóog nit ki mais bu fi nekkee duma ñëw loolu amoo ci droit yow. mais fa ñëw man tey soo yoroon sa kër ma ne ah man ne du ma tuddanteeg Omar. du ma fa dugg. mais est-ce nekkul PDS su ma fa duggee nga xas ma wala nga def ma leen. PDS mooy mooy may tooñ sama bopp mais ginnaaw xala ginnaaw ay jàmm. non non jàmm moo amut. Ah, ah. moom. mimi mm. moom merci ah, léegi ñëw ci jigéen jigéen ñi ak politique. yéen dégg naa xuloo rek ngeen nekkee ci politique bi ak tàccu. xuloo tàcc ak kii maanaam bu xuloo jotee daal daggasante mbokkal xuloo la Fatou Gueye macha allah ba nag waa léegi taxawaay baal ma aywa <laughs> man ak tàccoondiwu ma fa si parti bi. xuloo. xuloo yow xuloo ba nga yem. élection di parti laay xool fu ma joxoñ maa ngi fa. très bien kenn doleewu ma si parti bi tàcc kenn doleewu ma fi defante. section xuloo bala nga. non non section xuloo jamais. Ah. man maa nekkoon sama section présidente section féminine. waaw tey maa ngi dem ba gérer section kon su ma fa tàcc yóbbu du ma fa du ma fa diriger. nekk commission nationale membre commission nationale de vente des cartes. nekk membre comité directeur nekk conseil municipal nekk conseil municipal kon su ma fa tàcc yóbbu du ma ko doon. <laughs> su ma fa tàcc yóbbu du ma fa mës a doon loolu. tàcc du ma fa yóbbu. tàcc la fa yóbbu. gaw ma tàcc sax mais jigéen ñi ak politique. waaw nan nga gisee ci réew mi waaw sonn rek ak metti ci naan ñu doon soo nekkee si politique war nga mën a gëm sa bopp war a mën a li nga bëgg ak li ngay bañ comme li nga wax sàcc rek ñu bañ ñoo utiliser si tàccu rek nañu xam li ñu bëgg suñu toogee nañuy kaas suñuy droit nañu dox tamit suñu àq ak suñu yelleef mm-hmm. si politique mm-hmm. waaw comme président Wade moom wax dëgg yàlla li mënoon yëpp defal na ko jigéen mm-hmm. muy parité bi fu góor toog jigéen toog na fa te yéen a ko gis mais mais ñi ne jigéen dañ ko utiliser comme xeexukaay ko jigéen comme xeer ah ni mu demee la doon benn góor. ni mu demee la gis nga ni mu demee la demee ko noonu. am na jour yoo xam ne boo ñëwee benn jigéen nga fi fekk. waaw te loolu musuñu ko fee wax. Ah. tey bés bi moo tax ñu def. Eh, nii bés bu nii lay def dañ koy. nii lay mos a demee maa ngi seetaan émission bi de. merci dama koy suivre chaque jour. voilà dama koy suivre chaque jour jigéen ñi rek. chaque jour jigéen am na bu toog fii si roq bi muy ñaata. léegi man seega man seega man yow. Mm-hmm. Euh, ni ma la gisee nii ngay defante nii. Mm-hmm. man jàpp naa ni. Mm-hmm. war ngaa génn PDS. génn jëm fan amul njariñ. donc déglu ma rek parce que PDS. mënatu la fexe ba ñëw au pouvoir non déglu ma yow fi mu toll nii ndaw nga. yaa ngi dégg. actuellement mën nga am avenir boo demee ci parti yi nga xam ni. parce que PDS démb la PDS sans la waaw lu nekk démb baax saa Ndiogou. non dama ne mënatu dem. man la lu nekk démb moo baax. mënatu la dem. déedéet xaaral ba ñu woo la. ma prêter suñu serment ba xam mënati nañoo dem wala mënatu dinaa la invité de. yow bi prêter yaa la invité may ñëwal sama bopp tànk ak tànk. prêter serment la. ah mbagg ak mbagg ñu ba ca ba. prêter serment Karim mais amnistie la wax. Karim nee na nañ réviser procès maanaam balaa nga ne naam fay ne dafa am ay blocage yi tax mënoo mënu même boo la ñëwoon tax nekk candidat da leen di jafe. benn blocage léegi nga ànd ci am na si wala. man euh, la benn blocage amu si. ànd nga ci am na si Karim Wade la ñuy déglu rek. ànd nga ci am na si Karim man la benn boo nee ma am na si da nga am deal deal amu fi. yaa tudd deal ah yaa euh, Fatou. dégg nga Fatou ngeen ni Karim bi. Karim day ñëw fii yàggatul dara. ñëw deal bi leer ma ne yàggatul dara Karim day ñëw léegi. dil bi leer na mi mi wax na. mais bu ñëw lan lay wax sénégalais lan lay. teg bu ñëw lan lan lañ ko def. dañ naa génne woon dëkk bi. mu ñëw toog. loolu lay wax ñëw bokk sénégalais la comme ñëpp am na droit ñëw bokk Sénégal. Mm-hmm. du dëgg. sénégalais la. waaye duñu wax ni papaam sénégalais la. du ni dil bi leer jamais dil. dil mosul am. àndut ak Macky. lu yàlla tudd rek ànd ak Macky. jamais ñii. mukk ah. doo ko dégg. kon baax na. mais lu tax ñoom doo leen gis ñu sol bu la mais xam nga PDS dañoo gisoon ne parti la boo xam ne bu tàng deret boo xam ne moom bu jógee ñëpp yëg ko mais fii tey ji dafa na ci tey li xew ci réew mi lan moo sedd PDS si naka nalaw gi muy nalaw combat yi am yëpp dans l'opposition gisatoo ci PDS APR PDS moo leen gën a animé animation parti Pastef noonu feneen ak feneen noonu PS ba nga xamante ne depuis suñu ñoom maam la sax non dama lay wax rek ni PDS di animé ay ay ay structure am. non non PS yaa kon yéen PS ngeen di tëkkale seen bopp. PS mani bàyyi ma wax rek. <laughs> yéen kay tànku ngeen yéen PS ni ñuy animé suñuy base mm. amul benn. Mm. waaw ñu ngi ci structuration mooy renouvellement vente des cartes section yaa ngi yëngatu. ñu ngi monté suñuy secteur mm-hmm. ñu ngi animé suñuy base amul benn parti bu animé noonu parti base am. amul. fooy dégg yeneen parti non keroog seen booy bi ñu génnee li ñu wax mooy dinañ jéem a yëngalaat kii. non non jéem a yëngalaat sax ñu ngi yëngatu. yëngaluñ. jéem a yëngalaat bi day yëngatu ñeneen dinañ monter ay section dañoo defal bi mi muy waxee. bi ñuy toog ci a yëngu. parti bi doxul de. 46 a ngi dox. 46 départements yëpp a ngi dox. yëpp a ngi dox mi ngi yëngatu. yow PDS laay wax nii fa yow fi ne xale bi xale bu xale bi nekk ci temps bi jël temps bi nii nii téye mooy ban xale. Ousmane Sonko xale bi moo gën a nekk ci temps bi moo ngi ñëw. ban xale. mi ngi bu nekk temps bi anamu. xale a ngi ñëw. ma nga dowa ma nga dowa. ma nga dowa. ma nga dowa mu ñëw. xanaa lay daw waaye dawut ci temps bi. nee na ma la ci temps bi lay daw. Tita Ba li mu war a def si pàcc lépp kañ la a envoyé audio mës kañ la gëj a envoyé man la mës ngaa mu vocal mi ngi koy liggéey mi ngi si programme dégg ay audio kon leen def leen ni def leen directive am ah. groupe WhatsApp yow yaa ngi groupe WhatsApp bu Karim yow kañ la gëj a déggante Karim yàggul daal kañ la semaine passée ci groupe ba nga bokk. groupe ban da ngaa gis muy def groupe. dëgg la wala mooy ay militant pire sax olof. <laughs> Eh? pire olof lay wax. kon fi mu ne yaakaar nga ni bu ñëwee moom. mala day ñëw fii moom mbay bi ànd ak sonk bi eh. dina ko. waay waay Fatou Diop yow PDS authentique nga ah. pire et ah, léegi da am daam ñu ne karimis yi jamono yi ñoom lañ gën a jox valeur ci PDS même boo xoolee sax ci investiture yi. da ngay gis ay nitu ay nitu karim rek ñooy. PDS amul karimis amul waa dis ñu ñëpp doomi wàdd lañ ay karimi séparation amu fi mënoo bëgg bàyyi bañ doom mënoo ni doom ji laa àndal bañ bàyyi loolu amul fenn ñun ñëpp ay yow tu es au PDS depuis ba lan nga am ci PDS na laa seet lu ma la si waxal fii yëpp <laughs> en tant que PDS authentique am promotion di doon ay député ñii di doon waaw yàlla mooy tudd lu mu pare rek yàlla moom lu mu def si nit rek pare na Mhm. parce que boo nekkee présidente yàkkamti wuñu daara ku nekk sa tour lay ñëw. Mhm. ñi nekkoon député bee passé bi yoon nekkuñu député dama dëgg war wala du dëgg. Mhm. ñu nekkoon ay ministre nekkuñu ministre bii pas kon tour la rek ku aaye wal sa moomee na ku nekk wal moomeem rek. ku nekk dans la am na ay départ yu am PDS. Hmm? Euh, départ yi. départ yi mooy ku mel ñoom Amadou Diarra ñoom Cheikh Dieng ñoom kii. Euh, euh, ak ñoom ñoom kii maître El Hadji Amadou Sall. loolu moom ak politique ñoo ànd. chaque jour da nga gis départ si benn parti. Mhm. mais saa bu nit demee rek nit ñëw na. mais kii ñëw ak kii dem dayo yi tolloo. parce que ah, kii dem kii dem yëg ni mi ngi dem mais kii ñëw moom. boo mais après ngi léegi maa ngi dem tel parti tel parti kii ñëw tamit su ko jaralee mhm. mu poñe ko rek ñu hmm? leen pousse leen yéen waa PDS. daa am lu mu gëmoon ba gëmatu ko rek loolu la xëy na dafa am lu gëmoon ba gëmatu ko am lu mu gisoon mu nekk si xolam xëy na xolam mooy changé. waaye ñu ne suñu xol du changé. mais seen mais seen propre adversaire yi Fatou. Mhm. dafa day am ñoo xam ne ci PDS la ñuy génn. Mhm. mais après ñoom ñooy doonaat adversaire bu PDS man loolu dafa ma xaw a jaaxal. waa loolu mel Massaly bu nee tey ci kaso bi Karim Wade waxoon na ko am naa 1000 milliards. Mhm. c'est-à-dire que moom dafa dëggal ni li ñu doon jiñ Karim yëpp dëgg la parce que 1000 milliards moom nit du ko liggéey ci réew mi. Mhm. Mhm. Ah, ma ne bëgguma tudd tur waaye kooku moom yàgg dafay wax yu mm, ah, ah, naa wax loo xamante ni. amul kon moom compté ci moom. bi muy demit yóbbaalewul kenn de. Mm, dëgg la parti bi. soo nee yow la bu la yow la ba nga dem kenn dootu la dégg non non moom am kenn sax gëmuñu kenn wàdd lañ gëm. na kenn mais wàdd mais noppal wàdd jotul. ah du noppal waaw moo tax ñu nekk si ñu nekk ñu yéen yéen yéen dese ngeen pour suñu congrès général. Eh, déglu ma si loolu lañ nekk. déglu ma yéen yéen ñi tey. Mhm. lii kum ci doonoon mais ci doonoon sa maam ngeen na ko nopp. ma ne Wade tontu leen bu yàggul nee na ñi naan nopp bi muy jënd carte yi. waaw nee leen ñi naan man noppaliku noppaliku. dañoo xamul mënum noppaliku wu ma fenn moom nee na su ko desoon benn nooy dina ko politique. amoon nga tëjee foofu macha allah léegi jeexna léegi ban message ngay lancé. aux femmes surtout ñi politique ak message boo xam ne peut-être. non femmes moo xam ne bëggoon na bëggoon nga ko loo xam ne bëggoon nga ko wax laaj ñu la ko. waaw ah, da nga sëf mi mi xanaa booy wax da nga sëf mi mi. <laughs> femmes yëpp la ñuy lancer message. Euh, di leen di leen ndokkeel ndax ñooy yaay. sauf mimi euh, ñooy bàjjan. Eh, ñooy lépp sauf mi <laughs> surtout jigéen ñi surtout la femme sénégalaise nga xam ne dañu sonn duñu tàyyi euh, chaque jour ñu ngi si njaboot gi <laughs> ñu ngi sonn ñu ngi def lépp daal maa ngi leen di ñaanal bonne fête